yu sans limite bi ak Mamadou Lamine Diante ñi nga xamante euh, bokkoon na ci ñi fa teewoon ngir tertu ko euh, ak Bassirou Diomaye Faye euh, Mamadou Lamine Diante ñu ngi lay nuyu. ma leen di sey bu baax a baax di nuyu say internet di la jaajëfal yow aussi ci sa liggéey. alors di la masawu xam nañ ni démb yéen a doon gàttandu euh, président Ousmane Sonko bëggoon xam dèjà ah, euh, euh, génn beeg bi nga koy soog a gis pour la première fois après huit mois ci ci kaso bi ndax mën nañoo xam naka nga dundee noonu ak naka la yegsee ba ci yéen. waaw xanaa mbégte bu rëy mbégte bu rëy te sant yàlla bu bëree bëri. Euh, ndaxte bi ma ko séenee ci biir oto bi laa ne yàlla rek mooy Karim euh, mu nekkoon mbégte fekk Sénégal yëpp di ko xaar euh, mu nekk koo xam ne man dama jàppoon sax bi ma ko waxee dama ne giraas yi bi ma ne alhamdulilah alhamdulilah ma ne ko giraas yi mu ne ma naam ma ne ko alhamdulilah baax na waaye dama jàpp ne Ousmane waruloon dugg ci kaso bi. mu ne ma ah kaso de kenn du ko ñaanal nit waaye man dama jàpp na dafa waroon dugg ci kaso bi ndax yàlla woon ko lim ko may hmm. mooy li Sénégalais yi génnoon ñëpp génn bi ñu ndogoo bi pare naan foog ñu tertu Ousmane Sonko ñu gis ne donc mu ne ma il est entré en prisonnier il sort en président hmm. loolu moo mooy sant yàlla boo xam ne euh, def nañ ko démb euh, delloowaat suñu bopp yàlla xam na ne moom rek a man euh, lépp loo gis yàlla la te Ousmane nekk chance boo xam ne yàlla da ko wàccee fii ñun Sénégal mu nekk suñu chance donc dañ ci war a profité bu baax a baax. bi waaw bon dafa en réalité euh, tooguñu waxtaan. Hmm. mais euh, dafa nekkoon ci biir oto bi mu xam ne ñu nga fa euh, parce que booba bi ñoom bi ñu bi ñu ñëwee. Hmm. gis nañ ne cortège bi ak nit ñi bëri woon nañu ci biti ñu daal di sant Basirou. Jomaay Fay bi nga xam ne mooy candidat bi mu ne ko génneel nga dem saafonteeg nit ñi. Hmm. Euh, moom mu daal di bàyyi nag Basiru mu génn saafonteeg nit ñi euh, moom xaar ba euh, minuit neuf minutes exactement la génn buntu kaso ba. pour daal di fu mu jëm parce que xamoon na ne également bu demoon këram amaana du fa mënoon yegg parce que euh, man mii dem naa foofu waaye mënu ma woon yegg ci biir këram malgré ñi ma doon àndal yëpp donc bu Ousmane ñëwoon aussi foofu dafa ragaloon euh, leneen am foofu moo tax finalement mu am fu mu yem rek euh, fanaan fa mais dina génn incha allah parce que loolu la ñu waxoon ne dafay dem commencé campagne électorale Ziguinchor gannaaw bu mu defee conférence de presse waxtaan ak sénégalais yi ak ak àdduna bi. oui kon ginnaaw conférence de presse bi kon Ziguinchor la. waaw waaw Ziguinchor lay dem tàmbali foofu euh, xam nañu souvent que Ousmane Ziguinchor la doon euh, def euh, meeting de clôture mais nag moom foofu la fekk baax waajuram bu góor foofu la tëdd waajuram bu jigéen moo ngi toog foofu di ko xaar mooy maire de Ziguinchor Ziguinchor yaa ngi koy xaar. donc euh, rafet na euh, bi mu toogee waxtu yëpp demul foofu mu commencé ko fa saafoon moom man nag incha allah damay euh, gaawantu daw dem xaar ko Kolda teew teertu ko teertu ko mu ànd ak Bassirou Diomaye Faye waa Kolda ay gis ñu loolu daal laa laa mën a promettre sama mbokk Kolda yi. ñu lay bàyyi xel alors kon ça veut bi mu génnee ba fii jotul wax. jotul tamit feeñ ci yoon lu mooy dafa bàyyi jomaay sa kanam lan tàkk nga wala daf ko bañ daf ko bañ a def ombrage Ousmane euh, sa turandoo sa turandoo nit la nit la nit la parce que euh, ñëpp xam nañ ne naam sénégalais bëgg nañ jomaay waaye fukki sénégalais boo jël mun naa wax ne juróom-ñett yi wala juróom-ñeent sax Ousmane moo tax ñu bëgg jomaay léegi nag bu la yàlla euh, mayee makaama boobu boo naree génn ak nit ki noonu boo mooy moytuwul rek da nga koy def ombrage. Hmm. donc du benn stratégie nite la mu xam ne Bassirou moom mooy candidat bi mu euh, biral ko sénégalais ni kii mooy sama candidat mu bàyyi ko mu dem saafoon rek moom mais du tere moom bu naree def campagne benn parti bi da koy ànd ak Bassirou beneen parti bi nag comme ñëpp da comme dañu war a lal euh, Sénégal yëpp mu bàyyi Bassirou jël côté bii moom mu jël côté bee bu ko defee ñu dajewaat Dakar ñu def meeting de allah. lan la war a wax tey. waaw ñoo ngi xaar euh, ay kaddu yoo xam ne xam naa ne dama ragal Sénégal taxaw ñëpp ñëpp retenir seen suuf di déglu Ousmane Sonko ndaxte kat sénégalais yi namme namm nañ ko namm nañ ko lool lool lool ci jëmmam namm ko ci xelam namm ko ci kaddoom hmm. donc nag xam naa ne kaddu boobu lay indi mais nag du mos a fàtte ne dañoo nekk ci campagne électorale euh, xamal nit ñi ne dañoo nekk ci tournant tournant historique Euh, sénégalais yi yàgg nañu folli bi yoon nag yàlla may nañu occasion ñu fal suñu président moom nag euh, bëggoon a nekk candidat waaye euh, am na nu mu demee mu ne moom jëmmam tuuti na ci projet boo xam ne moo ko boole ak sénégalais yi buñ ko teyee également moom projet bi kenn du ko téye yàlla dimbale na ko ci ay stratégie ba mu am candidat boo xam ne jàll na muy tudd Bassirou Diomaye fay donc euh, euh, dina wax nit ñi euh, lu tax mu tànn Bassirou Diomaye fay ak lu tax ñu war a woteel Bassirou Diomaye Faye te bu yàlla defee également sénégalais yi fal Bassirou Diomaye fay au soir du 24 mars 2024 incha allah moo ko Ousmane Sonko ñooy ànd doxal yëf yi ni mu ko waree te moom ni mu ko yéene woon ci sénégalais yi donc parce que tey jii bi ñu dajeeg Bassirou Diomaye Faye xamal nañu ne euh, euh, dernier communication boo xam ne dernier waxtaan boo xam ne amoon na ko ak Sonko Ousmane da ko xamal ne <clears throat> projet bi nga xam ne moom la ko dënk pour mu woon ko Sénégalais yi moom daf ko jàppee ne euh, yàlla yàlla daal moom la ci jiital parce que dafa jàpp ne téere boo xam ne la euh, comme alxuraan wala comme bible moom la war a doxal ci diggante moom ak sénégalais yi donc moom du ko caaxaane te xam naa ne Bassirou comprendre na message boo xam ne dënk na ko ko. mais du tee di fi jaar yëpp coow li bëri na ba ci génnam xanaa tey euh, ci ci bu jàkkaarloo parce que xibaar bi ñàkk mu ñëw ci ñuy xalaat ne génn bi xëy na am na lu ci laxasoo yu ni mel jàppoo ni leeral googu ak transparence googu mu warloog askan wi te yàgg koo wane xëy na waaye même ku gis manifestation sénégalais yi fépp ci Sénégal man nit ñi woo nañ ma Médina Yoro Foulah ne ma nee na ma fii kenn nelawul nit ñi woo nañ ma Kolda nee na ma fii nelawul woo nañ ma Vélingara nee ma nee na ma nee nañ ma fii kenn nelawul dafa mel ni Sénégal moo gagné woon coupe d'Afrique wala coupe du monde donc loolu rek doy na euh, balaa muy dugg ci yenn yenn yenn enfantillage parce que xam nga en réalité nit booy jugé nit da koy jëlee ni sa bopp yow boo yàggee diil koo xam ne yàlla da koo setal da ngay naan dafa diil parce que mënoo imaginer kooku nga xam ne dafa laxasoo yàlla delloo boppam yàlla yàlla dina ko setal euh, ci bëccëg ndaru kemb nga ne kii dafa diil parce que yow xam nga ne boo nekkoon ci situation boobu dangay ngay dil Ousmane du dil kat mm. Ousmane du du monnaie rien di tout sur doo di pour peuple sénégalais Ousmane gor la sénégalais loolu lañ ko xamee Ousmane bu doon dil bu mu nekkee euh, impôt domaine dil na Ousmane bu doon dil bu mu nekkee ci ay jafe-jafe ay procès yu dul jeex diil na Ousmane bu doon diil du dugg kaso Ousmane du dil kat jarul mu ci euh, ab épanché wu xam na fu mu toll ci Sénégalais yi xam nañ fu ñu toll ci Ousmane Sonko loolu rek doy na lu ci ñu bàyyi ko yàlla. ñu ngi gërëm di la sant di la xaar ak kii di Moussa Balde. waaw mais xam nga xam nga d'abord dafa am benn constance. mooy nguur guy jeex même boo amoo seetlu boo jàkkaarloo moom da xam ne nguur gi jeex na euh, ñun waa Kolda yi lu ci ëpp dañ doon wax ci kaw gi nit ñi dañoo dañoo nekk ay ay euh, ay nit yoo xam ne dañuy yëngu ànd ak nguur gi. Hmm. waaye man décembre am na foo xam ne dugg naa fa euh, quelques villages. Euh, ak quelques commune rural yoo xam ne ñu fësal leen ma ne ku dul Ousmane Sonko ñoom gisuñu ko senegal donc nag nit ñi dégg naa xaalis bu bëree bëree bëree bëri li xel mënut a xalaat ñoo ngi koy tuur seen Kolda nee nañu ñoom foog ñu gañee nee naa waa Kolda yi ki fa indi xaalis du ñaxam seen impôt yi la la ñuy leen indil niñ ko jëlee ba indil leen ko nag bu leen ko xool ñoom ñoo koy layook yàlla jël leen ko ngeen lekk ko parce que ñaanu leen kenn ñoom ñoo ñoo bëgg leen jënd euh, ñoo xam ne également nee nañu ay ministre lañu ay candidat lañu ñun suñu kàddu bu la ñu am bu dul buy kaddu Ousmane Sonko moom lañ leen di yëggee bu ko defee ñu xam fan la dëgg bi féetee le 24 mars incha allah ñu wotal Ousmane Sonko wotal Bassirou Diomaye Faye ñu fal suñu cinquième président ñu mettre en pratique euh, le projet bi nga xam ne moom la sénégalais yëpp xaar ndax ñu am beneen Sénégal boo xam ne Sénégal bu jub la Sénégal bu naat la Sénégal bu moom boppam la ci biir Afrique boo xam ne dafay jëm dafay jëm kanam. jërëjëf.